ñu yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax jëgën ci kenn mag secret ba secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 waaye loxo noon yi nga xam ne ci la nekkoon ñu yor ko juróom-ñaari at ci tukki bi yàlla fegal na ko seen loxo ya ba ñu mujj sel def lu ñuy wax lagge maa mënatuñ ci sëriñ bi dara seen loxo yi mënut koo lool waaye dàq na bépp jëng boo xam ne doxoon na digganteem ak moom moom sëriñ bi ak yàlla jéng yi nga xam ne day dox diggante jaam bi ak boroomam suñu boroom tinkil na ko ko ba tey mi kon ne wajaxtu wàcc yàlla dal bu xóori la xoo wa jaada bi mu xóoril xóori wajaxtu jëmale naa wàcc ye sama jëmu la xoo ko ca yàlla la dal bu xóori fa géej ya wa jaada te tabe na ma moom yàlla bi mu xóoril xóori ci canuk xóorul ay nii jooyal naa sama jëmmu jëmee ko ci yàlla ba ma nekkee fa géej ya yàlla rek laa doon gestu gestuwuma nasaraan bi te nasaraan yi ñoo ma waroon ak duusu géej gi waxaw li nasaara wal buhuuru tamuuru waaye sëriñ bi nee na booba yàlla rek laa gestu yàlla rek laa doon jaamu yàlla rek laa doon wéetal di ko kennal ca géej ya defe naa ne kennal googu rek gën naa yaatu muy wax ak géej gi naan ko ayaa baxru waxi laa tusallis fa rabbuna taala ani taslisi ak rimbihi rabba di wax ak géej gi nga xam ne léegi waxut ak leen waxut ak nasaraan si waaye géej gi lay waxoon na ko ah su fekkee nasaraan yi dañuy ñetteel yàlla yow kat bu ko nangu del kennal yàlla bañ koo bokkaal yow géej gi waaw kooku tabaaraka la laka sukru wa ridwaanu minni wa fii jasirati nee ne raqib ak ñaari malayka nga xam ne lu waaye def lu ne dañ ko bind nee na bu yowmal xiyamee danañ ma seedal lu ma nekkoon Mayomba yëpp ca géej ga tabaaraka la moo tax mu ne jëmale sama jëmm ca yàlla ba ma nekkee fa géej ca ma yàlla mayee canu góorul ay nii mboolem canu góorul ay nii te kuy jaamu yàlla ku ne te ragal yàlla bëgg ngay am sa canu góorul ay nii yooyu ragal yàlla moo koy maye. ñi nga bind ca seen gannaaw ya na képp koo xam ne bëgg na ca fal yaxmal bi taa atirab lañ bind sa jigéen warul ay nii ya nekk dañuy bind ca seen gannaaw ya waaye kenn ku nekk dañuy bind ci sa dënn aw turu yàlla ba noppi lëkkale ko ak turu jëkkër jëkkër ji nga xam ne moo ko war a denc ba ëllëg yomal xiyaam yi yàlla nañ ci bokk waay mu ngi mel ñu ne Ibrahima wala wala nangam wala keneen su ko defee soxna ya war a am soxna su kenn ku ci ne dañuy jël aw tur yàlla lëkkale ko tur ko ko war a denc bind ko ca ndeysaan yàlla nañ ci bokk waay nee yàlla nag may na ma can kóorol ay ni mooy can ya can mooy li nga xam ne balaa ngaa jot ci ndaw si balaa mu lay lew foog nga joxe ko Ah, kon nag nee na yàlla may na ma cat ya <laughs> kon wane na moom moom jigéenu laay wóorul yépp nii yëpp tabarkallah ndeysaan jaada tabe na lii ñel moom yàlla fii ca biit géej bil jihaadayni ñaari jihaad yëpp ma an mboole seen wajamaha te dajaleel na lii ñeel ma maa faako loo xam ne kawe na sax muraad yi sama bëgg-bëgg sama xemem téef yàlla ba ma nekkee ci géej ga defal na ma ma am ñaari jihaad yëpp muy jihaad mel ni ko àndatoon ak yonente bi di tuur deret waaye jihaat ak sama bakkan xeex ak moom ba fas yéene not ko fu ne jihaat ja yonent bi doon def boobu mooy jihaat bu ndaw bi mooy jël sa jaasi di xeex ci lislaam bañ rey la ngay reyee lépp tabarka la loolu mooy jihaat ji gën a ndaw waaye jihaat ju mag ji mooy not sa bakkan mooy li gën a jafe loolu moo tax ñu tuddee ko moo tax yonent bi xar yi jeexee mu ne léegi nag jihaat ju ndaw ji jeex na li ci des nag mooy jihaat ju mag ji sëñ Tuubaa ne fekkee naa jihaat jooju waaye itam fekkee naa jihaat ji gën a métti mooy fexe ba not sa bakkan ak sa bànneex ñaari jihaat yëpp am na payoor ba moo tax yàlla may na ma ci biir géej ga ba ma fa nekkee ñaari jihaat yëpp ma am ko waaye dajaleel na ma sax ba ma nekk ci biir géej gi jox na ma loo xam ne kawe na sama bëgg-bëgg la ma doon bëgg daal lim ma jox féetee na ko kaw xaajartu gàddaay naa min ha bàyyi ko ca géej ga saaliman di aji mucc a al ayib ci lépp luy ayib wa min hedaay ak samay noon li du yori yi da jëm nag ñibi ci samay kër bil xuyób ànd ko xam yu ya naa nag léegi comme yàlla may na ma ma am ñaari jihaat yëpp ku àndatoon ak yonent bi jihaat waaye nag ku noot bakkanam ak xam not noon yëpp nee na léegi nag gàddaay naa bàyyeekoo ca noon ya xam nga bi mee ko fii Sénégal dafa dafa gàddaay dem waaye nag dafa gàddaay dem ba demee lam doon wut mu am ko mu ngi mel ni yonent bi gàddaayee Màkka rek dem Madinatu Munawwara waaye teg ba ba mu demee ba fatu Màkka ba nga xamee no not na noon ya dellusiwaat na Màkka kon noonu rek la mel Sëñ Tuubaa kon dafa gàddaayee fii ci Sénégal lu tax mu gàddaayoon xadaytu laqa bi shikri wa sukri yan alal Moustapha man jooduhoo naxu yéen saba ca xasida rëdit nee na gàddaay naa neen nee na neen laa gàddaay fexe di tudd yàlla ak di ko sant ak di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ay mayam waxtu wu ne dañuy sottee ko sama wàll moo tax mu ne gàddaay naa bàyyi ko ci géej gi nag léegi nag di aji mucc ci lépp ayib kon ba mu bee ko ci géej gi fekkoon na mu set wicc ci ayib ndax yàlla may na ko mu jihaat ñaari jihaat yépp mel na ni ko bi waaye mel na ni ko xam ne not na bakkanam ak bànneexam waaye mucc na ci tam noonam yi te mooy tubaab yi léegi na fan la jëm mu ñibbi samay kër waaye nag fekk na yàlla wuññul na ko ay secret moo xam lu war a xew yëpp ci ay këram ya te boobu mu ngi ci tukki bi kon haajartu minha saliman min al uyub wa min adaya li duyuri bil xuyub askuruhu sant naa ko moom yàlla wa huwa te moom yàlla alkarimu mooy aji tedd ji wasalaam mooy borom jàmm ji ku am jàmm mooy ki la jàmmal fii watani ci samay biir dëkk dëkk ban la mu ne Touba te mooy Touba guy tekki ak texe wa fii daari ak daari salaam guy tekki kër ak jàmm yàlla sant naa ko ndax mooy aji tedd ji balaa nga koo ñaan mu defal la waaye ku am jàmm ku ne darut jarut bàkku yàlla la ko defal maa ngi koy sant ci sama biir dëkk bee di Touba ñaari dëkk yi muy Touba ak Daaru Salaam man ngeen ne xasida yi daanaka moom rek la ciy tudd diggante Touba ak Daaru Salaam ndax Daaru Salaam mooy mooy bi mu sanc ci dëkkam yi bëggoon ko lool di fa jaamu yàlla daan fa dugg ay xalwa di fa diyanteeg yàlla ci alquran waaye Touba nag mooy dëkkam bi ko gënal moom dëkkam bi nga xam ne moo ko gënal ci mbooleem dëkkam yi Daaru Salaam sax anniversaire am léegi tey mu ñëwaat parce que Daaru Salaam bi ko sëñ Touba di sanc euh, fukki fan ak la ba tey moom la tombé gis nga la ba tey ndax fukki fan ak juróom-ñett ci la génn ko maam Cheikh Anta ak 99 taalibe yi daleen leen sanc mayaatu leen rek kese mbenn rek la fa dëkkoon muy Touba Touba al sax moo doon dëkkam moom waxee sama dëkk rek mooy Touba waaye yii yëpp moom dafa wëccoon ay taalibe yoo xam ne defar na leen def la muy def ci ñoom bàyyi bàyyi leen ay taalibe yoo xam ne dañ leen di yar di leen tarbiya ci jamono ji nekk fi waaw ak Darou Salaam nag ñaari dëkkam yii moo ko ci loon waaye Touba nag mooy dëgg-dëgg dëkkam ndax foofu lañ ko denc tabaarkalla te nee na dëkk la boo xam ne yàlla mo ko tegtal waaw ah, ndeysaan kenn mosul koo moom amul kenn ko xam mos naa moom dëkk bii di Touba suuf si sax kenn mosu koo moom yàlla moo ko tegtal moo ko jox kon loolu kéemaan la kon Daaru Salaam anniversaire lam léegi tey mu ñëwaat mooy fi mu joxoon maam Cheikh Anta borom gaawaan muy borom dërëm ak ngërëm anniversaire lam mu ñëwaat ndax bañ koy sanc fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar la te léegi tey kon mu ñëwaat ndeysaan lii laay ñeen yàlla sil jalaale moom muy borom màgg mooy wuñu xormaal alxaraam yi wada wuñ xormaal fii chahril muharam ci biir weeru muharam alxaraam yi wada wuñ xormaal ñeel na yàlla moom ndong ma muy borom màgg ak terele fii chahrihil muharam yi ci biir weer wi nga xam ne mooy weeru muharam alxaraam yi weer wada wuñ xormaal ñeel na ko lan mu ne xam di sama cantu xol wa qablahu ci lu jiitu ko saaka naka ko bax doo bax doo ca gannaaw ga ala masirin sama dox ba xam ne xattawaa ñal na lii ñeel ma buux da sëriga nee na ñeel na yàlla moom mi borom mag ak terale gi ci biir weer wi nga xam ne mooy weeru muharram weeru muharram ndax ku ne xam ne ne sëñ Tuubaa bi muy génn di dem ci tukki ba weeru muharram ci la xam ne dëgg-dëgg nag weer safar moom bu ñëwee moom fokk dana génn dem ci tukki ba loolu moom sikk nekkul ci gis nga ci la taalif bidaayatul xidma ak xasida yu bari yoo xam ne doon na ko laltaayee ndax xam na fu mu jëm bidaayatul xidma ci la bokk ak yeneen xasida biir weeru muharram mu ne nag ñeel na yàlla moom muy borom màgg ci biir weerum xaram weer wi nga xam ne dañ koo xormaal yàlla da koo xormaal ba tari si sax julit ñi di ci xeex sama cant xol ak lu jiitu weer wa ak gannaaw weer yëpp maa cant yàlla ak sama dox bi nga xam ne laa doon dox ci tukki bi te yàlla taxañal ma sëri ba nga xam ne bu mu waroon a dox jëm ci sa borom subhanahu wa taala ay téeméeri at yàlla taxañal na ma ko ci diir bu gàtt ma yegg ci moom nee na loolu maa ngi koy sant yàlla xam di sama cant xol wa xablu ak lu jiitu weerum xaram kasaaka na ko noonu baxdu ak gannaaw ga lu nekk ca gannaaw ga weer yëpp daal maa ngi ko cee ci samay xol ala masirin ci sama dox bi xam ne xat tawaa taxañal na ko lii ñeel la buux de sëriga nee na woon tawaytu tariqal xam yi waxtab tidaayi wali xat xadal xaajati bi raw bi raw di wal basti sama borom daf maa taxañal yoonu gaañu baax ñi ci waxtu bu may teg yonent bi yàlla suñu borom daal di ma fajal samay ajoor tàggatal ma ko wisaare ko ku xool gis ku xoolul gis samay xéewal ku xool gis ku xoolul gis tawaali ilaahi buux da sëri jaayi wali baana wala yi baana xayru sax yi baax na si bàyyi noonu ma ko waxee ca xasida gu tëdd gu di mi daal mun naa ye samay mbébét yi sooq dana ko màngal lii jëme ci man saa amaani mbir moom mooy borom ak kóllite insa ahoo ndem soob na ko waraadata dana tàggata lii ñel ma samaani samay jamono samay mbébét yàlla daf ma koy indil ci waxtu ne nga xam ne damay am sécurité koo xam ne foo toll loo bëgg ñu jox la kooku doo jàq defe naa ne foo toll ci sécurité ngay sécurité ci ngay dugg mu ne neem neex na yàlla nag sama mbébét du ma mos a tàggoog moom lu ma mbébét rek yàlla ñëw màngu ko jox ma ko waaye yàlla moom dana ma tàggat dana ma tàggatal samay jamono loolu waxin la mu ngi mel ne lu alquran wax ne was alil xariyata xam nga ab dëkk kenn du ko laaj alquran nee na la laajal dëkk ba xam nga ab dëkk kenn du ko laaj waaye boo waxee yàlla tàggatal ma jamono mooy ñun jamono ahlu samaan la ci jublu noonu ma ko waxoon ci midaadi yeróodu bi jaahili Mustafa laaw li samaan yàlla ci daraja yonent bi ci la ma tàggatalee jamono jublul ci jamono waaye ñoom jamono ñu nekk ci jamono la ko yàlla tàggatal ba man leen di jëriñoo sëñ Tuubaa ñëpp mën na leen di jëriñoo yàlla ko tàggatal moo tax ma ne war a dali sama yàlla moo ma tàggatal samay jamono muy samay ñoon jamono moom la ci jublu daxaa woona mi xilaami samay xalima wa mi daadi ak samay daxa li sukóor jëm ci cant rabee sama borom faw si sama texe bil mun a ànd ko ya ànd ko xéewal ya neex ma amul morom est-ce que asakóor yàlla mu di santaakoon bi te yooyu ak cant samay xalima ak sama daxa yëpp li ko woo ngir mu cant sama borom mooy texe gi ma war a texe rek texe war a texe kese ànd ak xéewal yi te mooy xéewalu aljana est yàlla moom nga xam mooy cantaakoon te yow na xilaami samay xalima wa mi daadi ak sama daxa li sukkoor jëm ci cant rabee sama lan moo mu ne faw si sama texe bil mun a ànd koo xéewal ya neex ma est-ce que asakoor yàlla muy cantaakoon ba yàllaahu yow yàlla woonaa la yaa raxmaanu yow muy xéewalaakoon bépp mi def ci àdduna yaa raxiimu tey aji yaram ku soob ci yaa man yow yaay ki nga xam ne xat euh, sumu yaa tuddees nañ la sarmadan ba faw bi malikin mooy buur bu moom lépp mu ne ko yow yàlla woo naa la yow mii xéewalaa koon ñëpp di aji yërëm ku la soob ci àllaaxira yow yaay ki nga xam ne bokk na si tur yi mooy koo xam ne moo bind lépp moo moom lépp moo yilif lépp moo tax mu ne ko yaa man yow yaay ki nga xam ne xat sumu yaa tuddees nañ la sarmadan ba faw bi malikin aji moom ji mooy koo xam ne moo moom lépp lépp rek yàllaa ko yilif moo moom mu ci kàttanam mu ne ko xutta li muy defee yàlla woo ko mooy lii da koy sant xutta sippi nga wax yooyu bii samay ayib innaka naka yow alquduusu yaay sellaakoon bi yaa man yow yaay ki xam ne lëxoo ñeel na la takbiiru ak màgg wa taqdiisu ak sell yàlla sippi nga mboolem wiis ay ayib yëpp dindi ko dindi ko ko ci man ba mu set wicc ba mu set wicc ndax yow yaay sellaakoon bi moo tax nga setal ko ci man ba mu set wicc samay ayib ki nga xam ne yaay ki màgg waaye yow yaay ki sell yàlla dong mooy ki màgg dëgg-dëgg màgg waaye mooy ki sell dëgg-dëgg sell ndax dara du ko taq loo xam ne ak manqué di lay jur loolu taq yàlla yésir na yombalal mata mataalibe sama càkkuto fii daari salaam ci biir kër géey di daaru salaam ak waxay suma makkastu fu man di sax ndax in naka naka yow loolu jafewul la asalaam yow yaay salaam mooy képp ko am jàmm yaay ki ko yaay ki may yàlla dama bëgg nanga ma yombalal li may sàkku ci biir daaru salaam ku nekk xam na ne bi mu defee listixaaram gu siw googu ba muy ñëw ci tukki bi yàlla xamal ko ne ko Daaru Salaam mooy moom ngay wàcc foofee ci kër maam ant nga xam ne nganaleem gu siw googu ku ne xam na ko bis bu ne daanaka juróom-ñetti gëlëm danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko danañ ko tëral kenn masu gis li mel noonu dem sax ba bëgg a rendi aw nit ñu jotoo ko loolu kéemaan la defe naa ne di rendi di ganale di ganale ba bëgg a rendi aw nit defe naa ne ci nganale googu lañ ko déggaale waaw waaw lañ déggaale ñi ne maam Cheikh Anta da doon bernde da doon bernde ba bëgg cee teg sa aw nit def naa ne bëgg sa sëriñ itam foofu la yem moo tax ko na nga yombalal samay càkkuteef ci daaru salaam ak fu mu di sax rek la ma fay sàkku nag ma ko jox ndax yow kat yow yay boroom jàmm ji ko am jàmm yaa ko jàmmal yaa moominan atlubu minhul amana antal muhayminu farul lii samana yaa moominan yow yàlla muy aji wóoluloo sab jàmm bu la neex atlubu maa ngi sàkku minhu ca moom yàlla al amana sécurité anta yow almuhayminu yaay aji jàkkaarloo rek yaay aji jàkkaarloo lépp kon nag farul yàlla nga tàggatal lii ñeel ma samana mooy ñooñ jamono gis nga ba tey ñooñ jamono rek la ci jublu jublu ci woo naa yow yàlla mi nga xam ne sab jaam am sécurité bu ne yaa ko ci dugal yaa ko ko defal du ak jàmbaaram de kon nag maa ngi sàkk ci ak sécurité fu ma toll di am garante ndax yow yaay ki jàkkaarloo lépp yaay muhayminu yaay ki seede lépp kon nag nag ma tàggatal mboolem ñooñ jamono ba nga xamee ne kenn du ma mën a lor te ñëpp daa leen mën a jëriñoo wajaxtu jëmale naa wajee sama jëmo ileeka jëmee ko ci yaa asis yow yàlla muy aji tedd ji wa jutta ta tabe nga liya ñeel ma bi kitaabi sa téere bi al asis bay aji tedd yàlla jël naa sama lépp jëmee ko ci yow yow mi nga xam ne yaay aji tedd ji waaye yaa jël alquran lépp may ma ko ci engrais bi léeg-léeg mu détaillé ko léeg-léeg mu ne engrais la ko yàlla may yëliinu lii bi kaw nikal jabaaru wal mutakabbira xaduwu baara ya liinu da nga nooy lii ñaal ma bi kaw ni ngir sax nekk aljabaara di aji am kattan wal mutakabira de te di aji rëy lan mu ne xaddu noonu ba nga xam ne baara aji liwatoo la ak man nee na sama noonu bi nga xam ne day liwatoo ak man yàlla danga ma ko nooyalal ba bam nooy nepp nangul ma nag ñëw topp ma ci lan ngir nekk di nga nekk di jabaar nga xam ne kuy am kattan kattan lu muy bari bëri kattan yaa ko ëpp kattan waaye nit lu muy rëy rëy di puukuru puukuru yaa kon noon yi dañ doon rëy rëylu kon nag mu ne nag ma leen nooyalal ya liinu dana nooy la lii ma bi kaw ni ko ngir sax nekk aljabaara di aji am kattan wala mu takabira tey aji rëy àdduwun noonu ba nga xam ne baara aji liwutoo la ak man dang ma ko nooylal tàggatal ma ko ba du ma mën a lor mulkuka yaa xaaliqu laa sarika fiihi farul farul lii man jala tasrika yow yàlla mulkuka sa nguur gi yaa xaaliqu yow yaay aji bind yow yaay bind ji laa sarika di xeeti genn aji bokkaale di la ñeel fiihi ci sa biir nguur googu yàlla sa nguur gi de yaa ko moom yaa ko sàkk kon nag farul na nga tàggata lii ñeel ma man képp koo xam ne jalaa dana feeñal tasrika li nga xam ne mooy ak bokkaale la yàlla sa nguur gi yaa ko sàkk yow yaa bind lépp kon kenn du la bokkaale ak dara ci sa biir nguur gi kon nag képp ku lay bokkaale rek yàlla nag ma ko tàggatalal nag ma ko toroxalal yàlla mu ala ko ca sa moo tax mu ne ko yaa xaaliqu woo naal yow aji bind ji mulku ko sa nguur gi laa sarika di xeeti génn aji bokkaale di la ñeel fii ci biir nguur ga maanaam yow rek yow yaay ki bind lépp kon nag furul na tàggatal lii ñel ma man képp koo xam ne jalaa feeñal na tasrika ak bokkaaleem ko tàggatal mooy nang ma ko toroxalal mu dellu tegaat ci yow yàlla yaa man lahu amrul wara yaa kun lii warul lii kulla man yu baari yaa man yow yàlla yow yaay ki nga xam ne lahu yaa moom amrul wara mbiri mbindeef yi yaa baari yow yaay aji bind yaa bind lépp kon nag yaa moom lii moom mbiri kun na nga nekkal lii ñal ma ba faw warul te yàlla na nga tàggatal lii ñal ma kull man képp koo xam ne yu baar yi mooy dana liwato ak man mooy dana rawante ak man rek <laughs> mooy dana rawante ak man koo xam ne day jéem a man bag daal yàlla tàggatal ma ko lépp noonu rek la ci lépp mu ne yow yàlla woo yow mi nga xam ne yaay ki moom mbiri mbindeef yëpp yow yaay ki bind lépp nang may nekkal fare ak man lu ma soxla nga di ma ko defal waaye nag ma tàggat képp koy rawanteeg man tàggatal ma ko warul yàlla na nga tàggatal li ma kulla man képp koo xam ne yu baar yi dana rawante ak man tubtu maa ngi tub ileeka jëm si ci yow innaka naka yow al musawiru yaay aji melal sab jaam lu la neex ci biit yaayam wanta faa daq nga anniya mu wëlis ma al asa lor ya wal xawaru ak neen te muy al xawaru day tekki al duxfu muy ak doxodi mooy koo xam ne fu mu toll du tudd yàlla rek kooku la ñoo xawar mu ne maa ngi tub dellu ci yow parce que yow yaay al musawiru wala si yusawirukum fil arhami kayfa yasaw yàlla ne liir bi maa koy def nu ma neex ci biit yaayam bu ma neexee bu juddoo ñuul bu ma neexee bu juddoo xonq bu ma neexee bala moo juddu faatu ci biit yaay ja dégg nga ndax loolu yëpp gis nañ ko ah, bu ma neexee mu doon ku gàtt fan bu ma neexee mu doon ku gudd wërsëg bu ma neexee ma banque ay wërsëgam ba du am dara loolu yëpp ci biir woy juru xale bi ci foofu la ko yàlla programme kooku mooy àll musawiru turam wu doy waar la moo tax maa ngi tuub jëm si jaww ndax yow yaay aji melal sab jaam nu la neex yàlla dindi nga ci man lépp luy xeetu lor waaye nag dindi nga ci man lépp loo xam ne xeeti noonu la xeetu neen la mooy ñàkk yàlla wanta fa dàq dàq nga yow yàlla andiyee moolis ma alasa lépp luy lor wal xawaru ak neen te mooy ñàkk tudd yàlla wajaxta jëmale nga lii ci man maxfiratan njéggal fii san nii ci li nga xamee ne njortoon naa ko bi kaw ni ka ngir sax nekk alxafaara de jéggalaa kon yaasal man yow yàlla muy borom xéewal yi yàlla jox nga ma njéggal lu ma njortoo de njortoo naan danga ma jéggal te jéggal nga ma ngir lan yaa ne yaay xafaar gis nga yaay borom yaay ki nga xam ne séexloo kenn nit mu tilim tilim yow yàlla bu ñëwee sukk soroon di la tooxlu rek wàcce boppam jël lépp jébbal la ko tuub dellu ci rek te bañ a delluwaat ca yi nga daal di koy jéggal mu ne kon la ma njortoon mooy di tuub dellu ci yow te a delluwaat ci bàkkaar nee na njort loolu am na de ndax yow yaay jégalaakoon bi wa jaxta jëmale nga lii ci man maxfiratan jéggal fii sa nii ci sama njorto bi kaw ni ka ngir sag nekk alxafaara di jégalaakoon bi yaa yaa salman yow yàlla mi borom xéewli xab na nga may lee ñel ma yaa qaxaaru yow yàlla muy notaakoon bi fii sal yow ci bii bis qaxaral ada notuk tubaab yi muy notuk noon yi ta muy tubaab yi wa basiran te yàlla na nga bégalee bii ci sama jëmm ji xaw mi sama wu nit yàlla may ma yow miy notaakoon bi nga xam ne loo not mu kon nag notal ma noon yi mooy daanal ma leen jël bu rëy waaye mboolem samay nit yëpp na nga leen bégalee ci man moom nag nitam mooy xeetu yonente bi salaay salaam loolu moo waxoon ne li sabab tukki bi wa an akoona an li xaw mi wa an akoona xaadiman fi daw mi ma doon ko xam ne day liggal yonente bi salaay salaam waaye doon koo xam ne day xettali day tinu ñi nga xam ne ñoo nekk ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga kon xaw mi mën naa gën mboolem ñoo xam ne rek nangul nañ sëñ Tuubaa bi mu ñëwee kooku basiran bii xaw mi mooy max naa xam maanaam ku nangul sëñ bi rek moo xam nga aju ci moom ak ñàkk ci aju mu ne yàlla muy notaakoon bi nag ma notal ci bii bis mboolem noon yi waaye wa basiran yàlla na nga bégalee bii ci sama jëmm ji xaw mi sama nit ndax comme dem na ci tukki ba ñëw nag te la ko taxoon mooy ba mu ñëwee la waxoon sëñ Abdou Karim Touré dane tukki bii de li fi taxoon a dem mooy teggil leen ak xisaab bu ëllëg yomal xamee gu leen kenn xisaab loolu Cheikh Ibrahima Fall doon na ko ko wax ak sëñ Abdul Karim Touré ca njaarim ndeysaan wasixtu dëgërlu naa bil bi ci kàttanug yàlla muy may wàkkoon bi wara saaxa tey aji wërsëgale ji wajaadate tabena bil hibbaati may mayam ya wala arsaaxe ak wërsëg ya nee na dëgërlu naa ci yàlla mi tudd alwahaabu parce que yàlla bu lay may mi ngi tudd al alwahaabu boo koy ñaan bu lay may wahaabu lay tudd waaye mooy arrasaaxu mooy aji wërsëgale léeg-léeg ne waaw kii fan la jëlee alal fekk yàlla muy rasaaku rek la léegi-léegi itam mu ngëb sa wërsëg ba doo am dara ñu waaw kii moom daa bañ a liggéey nanga te fekk du loolu yàlla moo la xëñ wërsëg jox kii rek nee na yàlla mi ma dëgërlu nag bi ma dëgërloo ci moom moom mi tudd waxaabu ak rasaaku may na ma ci turam wóob di waxaabu waaye wërsëgalee na ma wërsëg yu bari ci turam wóob di rasaaku gis nga wasixtu bil waxaabi bil hibaati waaye wasixtu war rasaaxi wala arsaaxi gis nga duñ ko ràbbee nu mu na ma bil fathi ak hubbeeku yaa fatax yow yàlla muy hubbewaakoon bi yaa man yow yaay ki nga xam ne lëxoo yaa moom alfutuhu ak hubbee wal miftaaw ak caabi ga yàlla yaa ma may ak fatu ak hubbeeku ci wàllu xéwal ak wërsëg ak hubbeeku ci wàllu dund yow mi nga xam ne képp ku hubbeeku yaa ko hubbi yow mi nga xam ne caabi jëy hubbee sax yaa ko moom caabi jëy hubbee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy al miftaax waaye yàlla mooy alfata kon caabi ji mooy yonente bi te caabi ji yonente bi yàllaa moom kon loolu tabaarkalla moo tax ma ne xabayte ne may nga ma bil fati ak hubbeeku yaa fataaxu yow mii hubbi waakoon bi yaa man yow yaay ki nga xam ne loxoo ñee na la alfutuuxu ak hubbee wal mi tax ak caabi ja caabi jay hubbee ak ak ak ak hubbi ga lépp yaa ko moom te yaa mu hubbil sa bopp yaquudu dana wamata lii jëme ci man alfu yooda may yey bëbb ko tuuru wala xoloo ak xam-xam ya kaw nu ko sag nekka lii ñeel ma wa kaw nu ko ak sag nekka ala ma di aji xam lépp yàlla de fu mu toll ay mayam yi bëbb ko sawan ak xam-xam ak leere ci jamono ju nekk day day womatu di ñëw ci man ngir sopp gi ma sopp di ma nekkal rek doon sama xarit ak sama sopp ak xam gi xam lépp moom yàlla loolu rek ci la ma nekkale saa su nekk rek ay xéewalam day bëbb ci man di tuuru di ñëw ci man waaye xam-xam yi itam kasaalika nak noonu buy xéewali di ñëw du fa bàyyi xam-xam lépp xam ne moom la nekk sama waaye waaye nekk gi nga xam ne moom la nekkee di aji xam lépp moom borom bi subhaanahu wa taala bi bitu dana ngëb xan nii mu walis ma kaw nu ko sax nekk alxaabida di aji ngëb lépp yaa mawlaa yow samay kilifa maa yesoo uni lépp lu may naqari sit nii yàlla nag ma doole di yaa an dañoo dagg xam sa gi muy li nga xam ne mooy ak leer muy leeru xol yàlla de moom mi nga xam ne mooy kii ngëb lépp léegi-léeg mu ngëb wërsëgu nit ki ba du am dara waaw mooy kii ngëb lor lor gi nga xamee ne dafa waroon a wàcc jaamam ba du yegg si moom léeg-léeg am ay nit ñu lay pexal te pexe mi du ñëw loolu yàlla mii xaabiru moo ko ngëb moo ko ngëbal ba lor goog du yegg si yow. mu ne lépp lu may naqare nag yow mii sama kilifa maa ngi lay ñaan nang ma ba nga xamee ne du yegg si ci man ngir nekk ñi nga xam ne euh, moom la nekk ci yow nga xam ne yàlla ne na maa ngëb lépp waaw wa samaawaatu matwiyaatun bi yamiini subhaanahu waaw wa maa qadaroo laa xaqa qadri wala du jamian qabdatuhu yawmal qiyaam wa samaawaatu matwiyaatun bi yamini subhaana wa taala maa ko na lépp ci ngëbug yàlla ci la nekk mu ne ko nag ngëb gi nga ngëb lépp kon nag nang ma nang ma lépp lu may naqari ba bu mu yegg si bu mu si sama kaw waaye nag ma doole li nga xam ne mooy ak leer moo tax mu ne yax bitu dana ngëb at nii mu wëlis ma kaw nu ko ngir sax nekk yow yàlla alqaabidu di aji ngëb lépp yaa mawlaa yow sama kilifa lan mu ne maay soo ni lépp lu may naqara ngëbal ma ko ba bu mu yegsi ci man waaye sit nii yàlla nag may dolli diyaa an ak leer ci waxtu ne nag may dolli ak leer lakkañ yal na la yow dong dong taw a jaxatu sama jublu wa anta ta yow araafixo yaay aji yëkkatiku ji walam tasal te doo dëñ mukk tudaafixo di aji joñal di aji joñal di fandaral an moominin walis koo xam ne aji gëm la yàlla yow kat yow rek lay jublu du ma jublu keneen parce que yow yaay aji yëkkatiku ji te ku la jublu nga yëkkati ko ndax yow doo dañ mukk di di di défendral ab julit moo tax julit ñi yàlla moo leen warlul ak ndimbal waaw julit ñi ci boppam yàlla inna allaha yudaafiu an allazina amanu ndax inna allaha la yuhibu kulla xawaanin kafuurin yàlla nee na maa warlul ak défendar julit ñi julit ñi maa bu ñu leen tooñee man yàlla maa leen di farle maa leen di défendaral ndeysaan moo tax ma ne walam tasal dañoo mukk tudaafiu di aji défendaral an moominin walis anta yow almuisu yaay aji teddal ku la neex wal musulu yaay aji toroxal ku la neex wa samih yaay aji dégg lépp anta yow al albasiru yaay aji gis ji waaye alxakamu yaay aji xatte ji waaye nag alkaafi yaay aji fekk ja aljumoox mbooloo ya yàlla yow yaay aji teral ku la neex ku neex nga teral ko yëkkati ko ñaar danañ bokk ndey ak nga teral kii suufil kii yaay toroxal ku la neex ba tey loolu almasiatu la lépp ci coob rek yàlla la waaye yow yaay ki nga xam ne amul lenn lu lumpul lép dégg nga ko yow borom bi subhanahu wa taala waaye yow yaay ki nga xam ne lépp gis nga ko waaye yaay aji xàtt ji waaye yow yaay ki nga xam ne aj fegal nga aji fegal nga li nga xam ne mooy mbooloo ya mooy mbooloo yi bu nekkee ca tartar ya lépp yaa leen di fegal tartar yooyu yow borom bi subhanahu wa taala lépp loo xam ne daal ñi nga ci xeeti tartar muy bu ëllëg yomal xiyaamee ci biir mbooloo ma bu ñuy raj rajlu yëpp yow yàlla yow yaay ki leen di fegal njàqare ya moo tax mu ne alkaafi yaay aj fekk yaay aj fegal al jumoox mbooloo ya mbooloo bu ñu nekkee ci tartar yaa leen di fegal lor yooyu yow yàlla mboolem jullit ñi bu ñu nekkee ci ay tartar ci ay fitna musiba yaay ki leen di fegal lor yooyu di wàcc seen kaw yoxis su ma teddal almuxis yow yàlla muy aji teddal ku la neex fii daaree ni ak alaxira waraadata yàlla na tàggatal lii ñeel ma almusilu euh, yow mi aji toroxal ku neex sala enrey ni ka xam ne mooy borom gàcc ak ak alaxira yàlla yow mi aji teral ku neex nang ma teral fii teddal ma adduna ak àllaaxira waaye nag nang ma tàggatal ka nga xamee ne aji torox la mooy ki nga xam ne dafa torox adduna ak àllaaxira loolu ma rek la ci jublu muy noonam yi ndax xam ne ne mi yëpp moom sëñ Tuubaa wóor na ko péng péng péng ne danañ am gàcceg adduna am gàcceg yowmal xiyaam te moom suñu borom fegal na ko gàcceg adduna fegal ko gàcceg yowmal xiyaam loolu xasida gi mujjee bind rek te mooy xaatimatu munaajaati boo demee da ko ci fekk waraada tàggata na lii ñel ma almusulu yàlla muy aji toroxal ku ko neex sala ni kay borom ak ñaari gàcc ya muy noonam ba nga xamee ne moo ko fexoon bañ génn ko ci jay sin yàlla muy aji toroxal ko neex fexe na ba gàccal ko toroxal ko adduna ak alaxira waaye moom nag yàlla da koy teddal muy woy moom sëñ Tuubaa fii ci adduna ak alaxira yu'assunil mu'assu fii daaray ni malaka nii moom loo na ma yàlla muy aji dégg lépp wala basiru tey aji gis lépp maa la nga xam ne xad rumtuhu maa ngi ko doon sàkku minhu ca moom wa maa lam aruma ak la ma sàkkuwu doon sax yàlla jox na ma ko yàlla muy aji moom ji moom loo na ma moom muy aji dégg lépp tey aji gis lépp nee na moom loo na ma la ma doon sàkku yëpp ak la nga xam ne sax jotuma koon a sàkku moo tax yàlla booy sàkku ci moom dara te di ko sàkkoo nam ko bëggee dalay jox sax loo xam ne yow sàkkoo ko moo tax yàlla moom loo na ma ba moom loo ma sax loo xam ne taxut taxutoon may jot sama digganteeg moom wajjaxa jëmale na lii ci man alxakamu yàlla muy aji xàtte ja fii saa ci bisub talaata baxda firaax yi gannaaw sama teqalikoog alxasara fukk ya wa salaasa ak ñett yi nee na yàlla muy aji xàtte yi jëmale na ci man ci bisub talaata gannaaw ba ma tàggoog fukk ya ak ñett ya loolu boo demee ci histoire dañ la ko nettalil moom sëñ Tuubaa xaadalaaw mataara ku nekk xam ne ne fukki nit ak ñett euh, seen njiit njiital tubaab yi mos nañ leen di digal kenn ku nekk sox ak bala fetal ñi jël sëñ Tuubaa yeew ko ci garab gi takk ay cëram takk lépp ci garab gi ñi ne ko ndax ñu takk sa bët mu ne matul ko de du ko mat de kenn ku nekk nga xam ne mel ni dafa am am arbitre boo xam ne mooy mooy ciblé bu ciblé rek bal yëpp tàkkee ndoor kenn ku nekk bi nga soxee sa bal ba jàpp ne nga ko ba noppi bi arbitre bi ciblé rek kenn ku nekk bal yëpp jëmali sañ tubaa kenn ku nekk ba nga tiiree da gis ne bal bi nga tiire dafa dëppaat dal sa kaw nga daanu foofu yem fa dee dee gis nga moom lay sante yàlla ci beneen xasida ne yàlla kat woo matal na ma ca bisub talaata loo xam ne gàccal na fu fukk yaak ñett ña yàlla may na ma ko ah ci bisub talaata loo xam ne gàccal na fukk ak ñett ya ndax dañ koo bëggoon a fetal ngir alak ko yàlla xettali ko fexe nag ba fukk ak ñett yooyu yëpp kenn ku nekk bi nga tiiree sa bal ngir bëgg alak sëñ Tuubaa bal yu ñoo dëpp daal sa kaw nga faatu dee hmm? coy xam nga loo xam ne eh, moo tax rey ku yàlla gërëm kenn mënu ko waaw yàlla gërëm kenn mënu ko ko jëm itam da ngay sonn rek léegi nag loolu moom lay jujj fii moo tax ma ne wajjaxa jëmale na lii ci man alak mu yàlla muy aji àtt ji fii sulaasa ca bisub talaata maanaam jëmale na ci jëmale na ci man ay may ay xéewal yoo xam ne gàccal na fukki yaak ñett ya nga xam ne fukki yaak ñett yi moom dañ koo bëggoon a rey yàlla nag yàlla dimbali ko ba nga xamee ne ñooñu mënuñ ci moom dara baax na firaax yi gannaaw sama teqalikoog alxasra fukk ya wa salaasa ak ñett ya fukk ya kenn ku nekk ak ñett ya dafa soxoon bala fetalam ngir bëgg alak sëñ Tuubaa wa jaalil yama fii sulaasa maa yux jilu saata wa salaasa nee yàlla jox na ma loo xam ne ci bisub talaata gàccal na fukk yaak ñett ya am na feneen fu mu ko wax tafadul al adli latifi wal xabir asaluhu tafsiruhu lii fi lxuboor tafadula yàlla nang ma gënal al adli yow aji màndu ji alatifu tey aji ñeewantu ji wal xabir tey aji dañ kumpa ji li nga xam ne moom la moom la lay ñaan tafsiruhu sëg bégal lii ñeen ma fil xubóor ci biit bàmmeel ya yàlla yow mi aji màndu ji tey aji ñeewantu ci aji dañ kumpa ji muy ñetti turu borom mu ne nanga ma gën a li ma lay ñaan mooy nanga ma bégloo ci biir bàmmeel ya waaw bu ma duggee ci biir bàmmeel laa jamono ji nekk nanga may bégloo ci waxtu wu ne yow borom bi subhaanahu wa taala heure bu ne rek nanga may bégloo foofee ci biir bàmmeel ya mboolem kuy bég ci biir bàmmeel maanaam nanga ma gënal ci kaw kookee yàlla loolu la lay ñaan yàlla na ko yàlla defal bixtu jaay naa lépp loo xam ne sama digganteeg yow la na du ma ko def woo tuub te tuub naa sax loolee waa waxafaraata jéggal nga sunoo bi samay bàkkaar wastaraata jënd nga sax marchandise moo ma jaayal la mi ne jëlee ko ci man waaye wakafaraa far nga sax mooy kafaara nga andi ma ma bépp bàkkaar bu nekk ci man yàlla lépp lu ma jaayantoon ak yow dox sama diggante yow njëg gi jox nga ma ko jox naa la marchandise ma te dootuma ci dellu ko kenn du xaj ñun ñaar waaye faral nga ba lépp loo xam ne xeeti bàkkaar la moo tax ma ne biixtu jaay naa lépp loo xam ne dama ko xaraamaloon ci sama bopp ne dootuma ci dellu oo tubtu te tuub naa sax di dellu caw ci waxtu wu ne te waqafara jéggal nga sax sunu bi samay bàkkaar wastara te jënd nga miniya ci man li ma la jaay waaye wa kafara far nga andi moolisma lépp loo ne xeeti bàkkaar la ci man yeesoo ko dana màng lii jëmee ci man alxalimu yàlla muy aji lewet ji wala asimu tey aji tey aji màgg ji xayra mu nan ngeen ci ay xéewal yoo xam ne sa yaxaxaa dana leen gunge mooy dana ànd ak yooyu tax si mu ak màggal yàlla muy aji lewet ji te xajoog ñëpp nga xam ne bu tax doon turam wii di xalim ñëpp jëlee na leen fi lewet gi rek a tax ñu koy bokkaale mu bàyyi fi mbindeef yëpp ci kaw suuf moo tax ne yàlla muy aji leewet ji danoo màngal yàlla moom nga xam ne mooy aji ji tey aji màgg ji danoo màggal ngën ci ay xéwal yoo xam ne buy ñëw da cee teg ak màggal yàlla daf maa jox xéwal yi bu di ma màggal xam nga sëñ moom yàlla ci boppam moo màggal sëñ Tuubaa defe naa ne ku ko màggalu da tad rek nee ngën ci ay xéwal yàlla màngal jox ma ko yoo xam ne sa yahaha dana leen gunge mooy dana ànd ak yooyu ba ma koy màngal di ma ko jox tax si mu ak màggal defe naa ne koo xam ne dañ lay jox xéwal bu noppi di la màggal ci jox guñ la ko jox loolu kéemaan la yàlla na nu yàlla defal dégg